di nuyu ñëpp leen ziar di dalal Abdoulaye Ndiaye ak euh, mouvement ànd defar di wax suñ mbégte suñ kontante recevoir leen fii c'est un plaisir et un honneur euh, ay mots de remerciement lay doon parce que lu tax mooy appareil bi ma tiim déjà euh, du ma wax remerciement mais remercier waat lañ def parce que du première action bu Abdoulaye Ndiaye def si lycée Mboro moom c'est un ancien du lycée jaar na lycée de Mboro jaar fi jaarat fi et jaar saa fi jaaré dafa lu mu fi bayyi loolu ñu ko ci gëreum diko sante dé damay wax né dañ koy remercier waat encore une fois ci li mu def euh, gis naa du fi la ko ñëkke Tivaouane wër na établissement secondaire yépp may leen appareil de matériel de reprographie en tant que acteur de l'éducation ñun dañu xam valeur don yi mu def parce que lii c'est des intrants de qualité école soko bëggé dimbalé si ko mayee photocopieuse réglé nga 50 de ces problèmes parce que école est moom mais Abdoulaye Ndiaye vraiment moom fi qu'il ko soxla fa lay pëlle njëkk na fi ñëw may ñu appareil bi Mon ex bureau moom laay liggéeyee ba léegi. sollicité nañ ko ay pour problème lycée bi et chaque fois ils réagir de façon spontanée te ñun li ñu remarqué que intervention c'est dans le domaine de la santé et de l'éducation et en tant qu'acteur d'éducation c'est dañ ko apprécier réew boko bëgg a boko bëgg jëmelé kanam fofu ngay euh, intervenir moy éducation et la santé C'est vraiment machallah ablaye Abdoulaye Ndiaye ko action ñu li ça c'est dans le domaine de l'éducation et de la santé et loolu mënuñu am payam c'est pourquoi au nom du lycée au nom de l'administration des parents d'élèves des élèves des professeurs euh, du gouvernement scolaire vraiment ñu remercions vivement ce li mu def parce que li valeur pour nous, lu am importance pour nous. et ce n'est pas son premier geste def na fi intervention defaat fi intervention defaat encore intervention mais ni ñu koy ñaan mooy en tant que ancien du lycée temps yi tous les anciens élèves sont regroupés formé benn plateforme am un coordinateur muy Babacar Kébé bi taxaw parce que seetlu nañ ne vraiment état lycée bi fi mu toll doy na waar yéeme na école bi ñu ko inauguré ba léegi mosul am réfection euh, bâtiment yi peinture bi ñu si peinture bi ñu koy réceptionné boobu ba léegi moo ci nekk li si yokk mooy li fi parents élèves tabax mais état d'élabrement euh, lycée bi ni mel jaaduwul ancien lycée fi ñëw visité nañ ko gis na vraiment ni mel jaadul té war nañ ci def seen loxo mo tax ñu mobiliser wu fan yëpp ñu ngi ci lancé ben cagnotte né dañuy ut cagnotte 5 millions luñ ci jot am commencé tabax ben infirmerie buñ paré attaqué salle de classe def réflexion mom biñ ko yégué daf neen cagnotte fu mu toll ñu ne ko 3 millions mu a complété naa ko 5 millions parce que c'était leur objectif. vraiment encore une fois euh, suñu xol sedd na ci lolu euh, école lolu la soxla. Mhm. partenaire bo xam dafa yëg de l'école. école. vraiment il est très sensible aux problèmes de l'école il est toujours à l'écoute des problèmes de l'école et ñun partenaires nous encore une fois je vous remercie vivement au nom de toute la communauté éducative pour toutes les actions que vous avez déroulées au lycée de mort et dans tous les autres établissements d'ailleurs. On suit de loin les activités et on voit ce que vous avez fait. Et en tant qu'acteur d'éducation, quand on va intervenir dans les écoles, ça nous fait plaisir. Encore une fois, je vous remercie. Et Antoine, nous les aussi. Nous les aussi. En tant qu'anciens, nous les une école école sort soxna réflexion defoon nañ fi devis de réception de 42 millions pour toutes les salles de classe euh, boobu ba léegi mais vraiment en tant qu'ancien, nous ñu ngi lay dénk loolu nga l'école, sa loxo faire école si pour faire école pour cadre de travail bas. parce que lycée Mboro quoi qu'on dise les def résultat ñu bëri ñaan c'est un lycée d'excellence et vraiment coup de résultat résultats mel noonu war nga am cadre de travail boo xam ne dafa résultats c'est pourquoi nous les lay école en tant qu'ancien nous di vraiment loo si mën a euh, ñu nous euh, réfectionner école pour que cadre de travail bi un cadre adéquat pour que les élèves puissent faire encore mieux de mieux de résultats kon nous ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm di la santé ak ñi ngay àndal ñëpp tous les collaborateurs merci beaucoup. Ablaye vraiment photocopieuse bii nga andi c'est venu à son heure parce que école moom comme ni ko proviseur waxee rek lii boo ko vous école rek pratiquement sekki nga benn dëgg bu fekkee ñaari dëgg ko jamoon dindi nga avez bi. Donc on ne peut que vous dire merci. Donc je pense que le proviseur le euh, doyen Sarr wax nañ lu ci ëpp donc muy ay kàddu yoo cadres ne ay kàddu yi cadre la ak Donc yi ngeureum donc jëmale ci monsieur Abdoulaye Ndiaye Ngalgo. ndax té damay wax né même koo ko xamul département de Tivaouane depuis quelques temps am na yëngu-yëngu a am lu mhm. ça il faut le reconnaître Et c'est grâce à lui. Mhm. qui fait l'actualité et de la plus belle des manières donc budul euh, dimbali ek poste de santé yi mi ngi ci lycée yi donc mi ngi ci ASC yi mi ngi dimbali jeunes yi mi ngi ci jàkka yi te loolu nag mosu am ci département de Tivaouane ndaxte bu njëkk lu ñu de dégg lépp daf daan yem rek Tivaouane mais moom dafa ñëw jéggi Tivaouane ouf est département bi yépp mm-hmm. donc di fi def lu social di social ñu koy sant di donc man mii man ma ko contacté woon te par whatsapp ñi ngi doo gisante ba nag moom musu ñoo gisante mané ko monsieur abdoulaye ndjay ya. ngal gu ñu dañu taxawlon ben kurel di ancien élève lycée de mboro di doon out ndimbal nak di dajale suñu dërëm ak suñu fukki dërëm ñu bëggoon nak nga jappalé ñu ci ma fatali ko fatali ko ma envoyé message ne ma bi fu mu toll mané ko kañal bi ci 3 millions mu ne ma complété na ko té dina leen may ben machine photocopieuse té bu suma gis c'est la première fois ma rek mom ñuy gisante lay def de bimu mako waxé ma jël sama téléphone woo proviseur wax ko mune ma ko la ko wax eh, abdoulaye ndiaye mune mune ko lum la def wallahi proviseur mo wax lum la mësa wax def ma wo comité de pilotage bi wax len ko ci ci ëpp ñi ngi france yaakaar naa sax xamuñu abdoulaye ndiaye ngal bi ma ko dugalee ci suñu groupe whatsapp bi ñetti nit duggandoo te ñoom bokkuñu fu ñu jógee ñu abdoulaye ndiaye ngal bu lum la wax def ko loolu nag muy lu jafe nag ci politique lu jafe jafe jafe jafe kon mom. du ak du c'est pas un politicien mais plutôt c'est un acteur de développement mm-hmm. donc ku mel noonu yaakaar naa ne ñëpp a ko war a jàppale mm-hmm. donc ils koy sant di ko gërëm ndaxte tey jii bu ko neexoon sax voilà wala wala yebal wala mu xool nu mu ko defee mais déplacer wu ànd ak délégation bu mag bi mu àndal ñëw ba ci lycée ça veut dire que vraiment yëg na lycée bi vraiment ñu koy sant di ko gërëm ci loolu mais aussi di remercier son collaborateur Lamine Diakhaté vraiment depuis le début Lamine

proviseur am na lu mu la wax ci ay doléances kon loolu nag dañu la koy euh, dénkaat en tant que ancien élève di la wax ne ñu ngi sa loxo ñu ngi lay jàppale te fa nga bëgg jëme Tivaouane yal na la fa yàlla jàppale yàlla teg ko si sa loxo nga yóbbu Tivaouane foo xam ne mus sa mus sa mus fenn ci àddina ba ñu koy coow yaa na la fa yàlla defal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk si turam ak santam di jiital si nuyoo bi le proviseur di si teg le censeur di si teg le président des parents d'élèves di si teg les élèves di nuyu aussi waa Mbor yi nga xamante ne ñoom ñoom laa fekk si fii taxawal ma fii taxawal fi taxawal fi le mouvement and defar de Mboro di teg si jiital si nuyoo bi ami topp nga xam responsable des femmes bu dee si góor ñi ma ngi nuyu jël nuyu bi tek ci loxo la mi jaxate mom mi nga xam aussi comme ni ko wax suñu xarit la suñu lepp la euh, bi may ñëw aussi tamit def na ma ngi ak une forte délégation ak ñom Tiawoon di sama ay xarit di sama ay nawlé ño xam ni tay bi ma taxawé Tiawoon suma ñëmé bu ba fi gëna yalla ñom ñom ño tax donc ku ci melni ni Yéremin Gumbala nga xam ni suñu xarit la c'est un administrateur civil ñëw ànd ak ñun aussi tamit diñu jàppale ci politique bi ku si mel ne honorable député Soxna Ascone Sall mi nga xam aussi mooy responsable des femmes à Tivaouane ak ñoom moo diggée ñu jël parole fii ak ñi ñu àndal ñëpp euh, di nuyu aussi suñu frère El Hadj mi nga xam ne aussi tamit suñu frère la di doomu Baye Ngal di kenn si Abdoulaye Tall ñu ngi koy nuyu aussi au passage proviseur li ñu fi dajale tey je pense que euh, ni ko Kébé waxee dama toog gis ñu créé benn plateforme euh, plateforme bi nga xam ni les anciens du lycée de Mbor ñoom ñoo ko créé ma gis ni dañu am benn programme pour tabax benn infirmerie fii au niveau du lycée bon bi ma ko waxee bi ñu ma ko waxee ma dégg ko am ñu ma interpellé aussi tamit si loolu ne ma ñu bari ñu ngi contribuer ma jotante ak moom ma ne ko fan la kañat bi toll mun ma ñu ngi amoon benn budget bu 5 millions yu teg yàlla def na am na ñoo xam ni contribuer nañ à hauteur de 3 millions wane ne ko bàyyi li des man engagé wu naa pour jàppale leen ko donc loolu moo waral tey ñu ñëw fii pour jébbal leen loolu nga xam ne waxoon nañ ko ak yéen ñaareel bi ñoom benn programme aussi dañ programme am solo ñu koy def si CM yi ak si lycée yi au niveau de Tivaouane léegi Ndomar lañ jógee si lii CM euh, Ndomar bi tey man it naa ñëw si lycée bi dont joxoon na leen benn sax boo xam ne waaye suñu at yële sa at yu yàgg-yàgg sax ma ni bii kat jaadu nañu joxaat leen ko. lycée bi nag daf ñuy rappeler lu bare bari ndax biñ cee inauguré fii maa ngi fàttaliku le professeur Iba Der Thiam. étant ministre de l' éducation nationale moo ko inauguré fii moo ko sama papa El Hadj Ngalgou Ndiaye fii. je pense que plaque bi ñu defoon inauguration bi war na nekk fii. plaque donc mi ngi nii donc loolu maa ngi koy fàttali comme démb. comme démb su man lycée bi aussi période bi ñu koy def fii boo ko wëree si département bi doo gis lycée bu mel nii ndax vraiment c' est un lycée.

mais programme yi si des moom xam naa ni Kébé dañuy gën a yaatal. Mm-hmm. ñu xool nu ñu mën a fexe ba réfectionné waat lycée bi. muy man ak samay morom ñi nekk Italie ak ñi nekk France nekk diaspora yëpp nag. ku nekk mën a loo xam parce que tey ku si nekk lycée am na def si yow loo xam mm-hmm. yaa ngi tedd tey te boo jaar fi doo ko def. donc dafay baax des fois ñu delloowaat buum sa mboy mboy ko. je pense que loolu aussi ñu ngi wax képp koo xam ne yaa ngi nekk doomu Mboro. ñun ñëpp ñu taxawaat àndaat bokk ndey bokk baay fexe ba li ñu bëgg si lycée bi ñu def yéene boobu lañu am si Mboro yéene boobu lañu am si Tivaouane yéene boobu lañu si lépp comme li moo diggee wax léegi rek yàlla dafa def duñu ay politicien ndax donte si politique lañu judd mais man dañuy jàpp ni politique développement politique sociale lañ gën a gëm acteur développement man laa mën a jàppe sama bopp ndax lépp loo xam ni tey Mboro soxla na ko mënuma ko tànkamlu ndax li ko war a mooy sama waajur daf fi taxaw El Hadj Ngalgou Ndiaye daf fi liggéey bu am solo ma ni nag ñaari dëkk yi mënuma ko xar ñaar bu dee Mbooro nee naa sama wajur mi ngi fi tëdd bu dee Tiwaawan sama yaay mi ngi fi tëdd donc tey su ma sañoon dëkk yi daax si àdduna bi yëpp Mbooro ak Tiwaawan lay doon donc loolu moo waral lépp lu waa Mbooro yëkkati ñu taxaw ànd ko ak taxaw ba lépp luñ ci war defee ñu def ko donc provisoire daal ñu ngi lay wax ni lii daal comme ni ko la ma waxee damay jàpp ni c'est un début mais yéene bi ëpp na fii jàppal ni daal saa yow gëstu lu lycée bi soxla bañ ci waxee dañ taxaw dañ ci taxaw keroog bi ma Lamine woowee ni ma lycée bi kat dañu am ay problème banc yoo xam ne nit ñi amul su fi ñu toog mhm. dama ne ko defal ma devis bi defe naa ne su ma juumul banc yi ñun ñoo ko fi def donc loolu euh, dañ ko def avec plaisir donc jàppal ni leneen loo xam ne tamit taxaw na lycée bi taxaw na te soxla ko incha allah dañ taxaw ba dañ si war def ñu def ci incha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp donc chèque bi 2 millions bi mi ngi nii Kébé chèque est là donc le chèque est kii bi tamit mi ngi nii xam naa ni yal na yàlla def jàmm li ngeen si bëgg aussi yàlla yombal ko incha allah bu neexee jërë ngeen jëf mbokk yi euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax Euh, nuyu Serigne Abdoulaye Ndiaye Ngalgou euh, di ko ziaré bu baax a baax euh, ñun nak en tant que principal du CM1 de Mboro ñu feeñal suñu mbekté lool ci xéewal yi ñu ñu indil ji euh may nettali ci suba kenn dafa ñëw ni ma dugg ci bibliothèque bi génn ni ma mais j'ai trouvé un bijou dans la bibliothèque là nous mu demee ah, on a un généreux donateur ami des populations ami de l'école mu ñëw indil ñu ko ndax suñu école yi ku def moi, mooy ne xam nga réalité yi fi nekk ndax dans nos budgets respectifs la daanaka du ma ne lépp de waaye li ci gën a bari à plus de 50% pour cent mi ngi jëm ci reprographie mi ci reprographie donc

li nga ci mébét li nga ci bëgg li nga ci séntu suñu borom defal la ci lu kawe njort yàgguma Mboro nag loolu waaye Kajoor laa dëkk donc xam naa ne yow loolu boo ko defee wàccoo sa and parce que voilà sa waajur daanaka ci loolu rek la nekkoon donc euh, lu mu ci am yàlla na nga am lu kawe lu ëpp loola fu mu yegg yàlla na nga yegg fu ko ëpp fu ko raw donc euh, pour beaucoup de mu euh, donc vraiment un grand merci au nom de la communauté éducative du CEM de Mboro Thank you.